Sénégal bonjour dégloo leen déglooti na lu xeweti eh bien tribune continue eh bien tribune eh la caution et des dossiers de candidature Bougane Gueye eh passe à la caisse et maintient eh le suspense bul déconner wallaay talaay et plus que pour l'apôtre eh bien l'apôtre du thé qui taaru Sénégal jot na c'est Tiakhane Fakhé pour la conquête du pouvoir l'évidence continue en tout cas eh de nous informer de caution électorale Gëm Sa Bopp accompli son devoir pour la présidentielle, et eh pour la présidentielle de 2024, en tout cas, et eh bien en tout cas, Bege, Béré, Beigne, Béré. Et bien c'est dans cette disposition que s'inscrit désormais Bougan Guénali, si on en croit, et eh bien si on en croit, le point actuel ce matin, ce matin, et eh bien ce matin, le journal nous informer qu'après, et bien qu'après son investiture, et son investiture en apothéose, en apothéose, avec à la clé un rat de marée, humain matérialisé par Waouai, le bulldozer, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Bougad Guédani, en l'occurrence, a déposé, eh a sa caution. En tout cas, Bougad Guédani, eh bien, Bougad Guédani, eh le chantre, du Tekitaru Sénégal, dot eh à la caisse, de dépôt et de consignation, eh le point actuel, en tout cas, semble dire, euh, Bon, restons avec le journal, restons avec le journal qui, à ça, une révèle, équipe, de secours du Sénégal en Guinée. Il est question là d'un premier pas de Nyangal National Universel Mondial. Marem Faisal vers la junte. Une interrogation Kourbaïfal et Molde Bourid Sigé. Le point actuel à ça une. En tout cas, ce matin, Wolf quotidien, Wolf quotidien de s'intéresser à une actualité de l'heure. À l'heure actuelle, le mandataire, et eh le mandataire de Prost, la porte du Bourroc, encore, et eh conduit par la DGE. Est conduit par la DGE e au nom de quoi qu'il en soit, Wolf quotidien de tenter d'expliquer, et eh de tenter d'expliquer Jouer au dilatoire, jam. Tout compte fait, compte fait. Le témoin quotidien parle d'application de la décision du juge de Dakar, histoire de révéler la DGE. Eh la DGE et la DAF disent encore Niet Moukou à Sonko. Bon, eh malgré, l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Dakar, demandant, eh demandant la réintégration Rakita, Taf Taf et Jody Jody, pour ne pas dire par la force de l'imam, doucement Sonko sur les listes électorales, la DGE et la DAF, eh campent dans leur refus catégorique, d'où la colère de Pros, l'apôtre du Broc, informe toujours, et eh bien informe toujours le témoin quotidien ce matin. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que nous livre l'As quotidien. En tout cas, le journal de révéler exécution, eh exécution de la décision de réinscrire son co sur les listes. La DGE, eh se barricade à la question de savoir pourquoi, et eh bien pourquoi la DGE insiste, persiste et signe, dans son niet catégorique. Et l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne en tout cas de nous apprendre que la DGE, comprenez la direction générale des élections, a eu raison, et eh depuis le début. Dédouaille, waouh, waouh. D'où notre intérêt, et eh bien d'où notre intérêt de prendre Réunion quotidien ce matin. Le journal de révéler eh saisine, de la DAF pour la réhabilitation de Sonko. Saisine de la DAF pour et eh bien Aïb Dafé enfin, et enfin à la bonne porte. Tout porte à croire, et bien tout porte à croire. D'après Réunion quotidien, que le mandataire, et le mandataire de Prost, la porte du Bourroc, c'est finalement, et finalement rendu élu à de l'automatisation du fichier habilité, et eh réintégrer un électeur, et eh électeur sur la fiche électorale. En d'autres termes, et eh bien faire de la réintégration de Sonko sur les listes électorales. Tiendela Fall n'est pas dedans. Si on en croit Réumi quotidien ce matin. Et en l'état, l'info quotidien semble nous renseigner que Tchafangi Kham Mafebi Yakona du côté de l'association des maires du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. en charge de leurs revendications avec à la clé des maires sur le pied de guerre. D'après l'info quotidien, il s'agit là des maires et des maires qui se désolidarisent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, de l'association des maires du Sénégal dont le président semble, perdre le pouvoir. le collectif, avait invité les autorités à prendre des mesures urgentes sur les problèmes inscrits dans le mémorandum du septembre. Et là, les maires, et bien passer dans les prochains jours aux autres étapes du combat et n'exclut pas, alors là, pas du tout, du tout, de tenir un sitting ou une grande marche avec leur écharpe aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement ce qu'il a lieu de retenir d'après l'info quotidien, à savoir l'actuel président, et eh bien l'actuel président de l'association des maires du Sénégal est mis en minorité, et eh en minorité par des maires qui ont décidé de prendre leur destin pour le témoin